dama lay laaj en fait yow du ñàkk même du ñàkk gis nga ko ah donc euh, yéen ñaar en tant góor ak góor xëy na waxtaan bi sax foofu mooy gën a lan la lay wax ci côté combat politique bi surtout surtout mouvement bi lan si wax saa leen di di gisante wala voilà. en fait d' abord li may njëkk wax mooy rebondir ci question bi nga ko posé. parce que peut moom mënu la wax. Mhm. pourquoi son père il dérange. Mhm. loolu laa bëggoon tontu ko quoi. en fait lu commissaire Keita pourquoi il dérange. c'est que son discours est puissant son discours pénétrant pas agressif sa discours dafa am day dugg ci biir maas day day sa xel pour bu waxee am na doole kàddoom am na doole joo xam ni na koy tëggee na koy génnee dana dugg ci nit ba nga xam ni nit ki bu fekkoon dafa xalaatoon dara sax dëgg yooyu mu wax dana ko dugg ci biir xolam ba amaana parce que man dama gis nii damay ànd ak moom ci mbedd mi. damay gis ay nit yoo xam ni fu ñu jàdd bopp koñ bu ñu jàdd. il faut que nit ñi ñëw taxaw ci moom nuyu ko. saafonte ak moom remercier ko ci ni mu taxawee di rétablir la vérité ñoom euh, nga xam ni ñoo nekk en face. le pouvoir en place. Euh, lu mel noonu daf leen di déranger. parce que tey bu fekkoon ni ñoom dañu nekk ci li nga xam ni moom la ñu diggoon askan. mais pourtant mu leen di déranger moom lay moom lay expliquer moom lay expliquer. su fekkoon par exemple ñoom dañu dañu respecter seen promesse tenir seen promesse yi nga xam ni defoon nañ ko si les promesses mirobolantes qu'ils avaient faites au au peuple sénégalais su fekkoon dañ ko respecter nekk ci liñ leen doon doyee li tax comme ni ko Myriam waxee li taxoon ñu fal leen muy réconcilier le sénégalais avec lui-même xam nga indi jàmm ci réew mi wane nii réew mi réewu jàmm la euh, jiital. fexe ba faj aajo nit ñi ci wàllu dund gi wàññi ko ba nga xam ne nit ñi alléger seen dundin def ay construction taxawal ay projet yoo xam ne buñ ko même buñ ko liggéeyagul léegi sax suñ ko waxee nit ñi seen xel dina mën a dal jàmm indi yëpp lépp jàmm nekk nekk ci réew mi mais defuñu ko on a vu que mënuñu ko def visiblement mënuñu ko def gis dañu am dañu taggatémbe fi mu nekk nii ils sont dans le pétrin Ah bon Oui, il peut. Aujourd'hui, aujourd'hui, aujourd'hui, depuis qu'ils son la tu ne peux mettre le doigt sur rien du tout. Ne lii ñoom ñoo ko def. wala lii nangam ak nangam am nañ ci yaakaar. ah waaye nañ dund bi. non dund bi waaye dund bi dafa yokku de hmm. manière hmm. ex exponentielle. dafa yokku yow xanaa yow journaliste nga quand même. Hmm. man tey rek maa ngi publier lu jëm ci pomme de terre lu jëm ci eh, soble. Eh, lu jëm ci pour te dire pomme mi ngi mi ngi toll ci dix neuf mille le sac mi ngi toll ci dix neuf mille francs ñoom li ñu tegoon noonu li ñu yokk li ñu doon wàññi. Mm-hmm. yokku la boo xam ne ñoom ñoo ko yokk noonu seen bopp ci deux semaines yi ñu toogoon yi ñu njëkk toog ñu yokk wàññi espèce yu musante ak askan wi la wàññi as lëpp mm-hmm. ci loolu. ay ñetti dërëm ak juróomi dërëm mais tey loolu. dafa naaw tey le le sac de riz est à presque vingt cinq mille francs waxuma vingt quatre mille francs donc ñoom fi mu nekk nii par exemple loolu sax mën naa wax ne ay affaire yu yokk sur le plan économique. Mhm. mën mënees na leen ko muñal. mais xam nga lan moo moo doy waar mooy les les questions principielles par exemple su ma ñëwee danaa dindi article quatre-vingt su ma ñëwee danaa fexe ba kenn dootul jël nit di ko tëj ci ay opinion mhm. su ma am na yu nga xam ne bu fekkoon taxaw nañu tànk yooyu joxe ci garantie. Mhm. nit ñi danañ leen muñal lu bari danañ ne ah ñii am nañu yéene parce que la ñu waxoon am na au moins loo xam ne ñi ngi ko commencé di def. mais fii lu ñu gis mooy une chasse au sorcières ay velléité de revanche ay attaqué ay communauté on a vu le cas de Oumar Diagne qui s'est attaqué à la communauté musulmane confrérique d'une manière générale lu kenn mësul wax ci dëkk bi mu taxaw janoog suñu mag yi nga xam ne maanaam seen mhm. xam-xam ak seen melokaan ak seen sell mhm. waxuma Sénégal mais àddina si yëpp dañ ko seede mhm. koo xam ni jàngam sax bënnul il n'a que des bribes de connaissances mal assimilées mhm. mu ñëw taxaw dañ koy corriger bés bu nekk mu ñëw taxaw naan day weccee àlluwa ak suñu mag yi c'est possible da weccee ak ñoom àlluwa parce que li ñuy wax mën nañ ko te ñu nga xam ni dañuy wax naan li ñuy wax di ko bind ñoo ngi koy jëlee ci loolu maxuus mu ñëw indi moom contraire loolu xam nga loolu dafa heurter toute la la la disons l'islam bërki dem boo njaay ka dégg le président Ousmane le le le le comment dirais-je premier ministre Ousmane Sonko taxaw indi débat wu ay voile débat bu nga xam ne c'était derrière nous depuis longtemps mm-hmm. aujourd'hui il a toute la communauté chrétienne derrière bi nga xam ni au lieu ñu jubale nit ñi il faut que ñu entretenir la paix aujourd'hui boo ko seetee ci affaire u émigration clandestine comme qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit mm-hmm. man du ma politiquer émigration clandestine du ma ni mukk état mooy responsable je ne le dirai jamais parce que xam nga lu tax. Mhm. parce que borom xel laa. macha allah xam naa ni c'est un phénomène de société. Mhm. xam naa ni y a des responsabilités individuelles et collectives ku nekk dañ nga ci am part de responsabilité. na mu kër yi ni mu demee. société bi ni mu demee ak nit ñi ni ñu dem ci biir kër yi. Mhm. ku gis lii am ci biir kër yi. nga xam ne dañuy jël nit ku ca néew doole ñu commencé di ko. di ko di ko gasal. boddi ko. maanaam di ko xas sama moroom yaa ngi am yow amuloo ah yow jur la nangam ak nangam sax gën. wax yu ñaaw. Mm-hmm. xam nga toutes ces frustrations en accumulées mën na tax nit mu dem ni damay wuti. damay donc. loolu ñu duñ ci voilà duñ ci mm-hmm. wax noonu quoi. mais ñoom. dañ ko jëloon def ko benn fonds de commerce politique. suñu tournée on a montré de vidéos plusieurs fois on te montre des à travers lesquels tu vois le premier ministre Ousmane Sonko mu booba temps opposant la mu taxaw di ci di ci politique di ci wax na nangam bu ñun bu ñu ñëwee lii day dañ nangam ak nangam tey yàlla def mi nga xam ne dara tawu ko xam nga yàlla dafa maandu ñoom ñu ñëw rek affaire bi multiplié wu par mille lu ñu mësul doon gis ci Sénégal ñu koy gis ci loolu mais ñun duñ ko politiquer ñun li ñuy wax mooy ñun askan wi ñoo war a delloo suñu bopp ci yàlla changer la ñu amoon valeurs yi ñu amoon démb ak bërki dem ñu jéem a capitaliser valeur yooyu delluwaat ci loolu d'accord mais mais mais commissaire Keita justement mhm. euh, ndax boo seetee xëy na ñu ngi ñaan et puis bëgg nañ ko te njort nañ ni xëy na ci fan yi di ñëw xëy na dinañ ko est-ce que d'abord demande ngeen liberté provisoire non xam nga fi mu nekk nii euh, justice bi dafa nekk ci dafa mel ni vacance la nekk mhm. mais xam naa ni loolu léegi mu jeex mhm. mais lu jëpp lu ñu droit may lu ñu yoon may incha allah danañ ko danañ ko utiliser. parce que tamit mag la. et tout et xëy na moom moom mooy supporter loolu mën ko muñ. mais ñun ñi nga xam ne njabootam la ñu njabootu politique am ak njabootu askanam njabootu deretam bon bu doon suñu sagoo vraiment du nekk ci fi mu situation bi mu nekk ko mm-hmm. situation bi mu nekk ci côté Miyam ci côté wér-gu-yaramam. macha allah côté wér-gu-yaram santé macha allah en fait. Mm-hmm. bon. après il faut prendre compte aussi de son âge tu am na boo à un certain âge même si il le di pas tu sais que mm. il s'est affaibli il s'est affaibli et que lool rek war na tax nit ñi nen nen humanisme bi foofu la foofu la war a génne en fait mm-hmm. voilà nen nen ko bàyyi vraiment mu mm-hmm. dellu si loxo njabootam mm-hmm. man appel boobu laay